kenn mënu ko fàtte Adama Kandé fàttug ji François Bocandé nag kon doon na rek ab perte bu mag nag ci réewum Sénégal yooyu kàddu nag bàyyeekoo rek ci magam bu jigéen Francisca Émile Bocandé ba léegi ci micro Adama Kandé. Euh, ñàkk nañu ñàkk nañu parce que espérons ñoon que il allait partir dina doon dem nii parce que il est parti en France. vraiment tane woon na il n'avait rien mais on l'a poussé à partir mais va te reposer là-bas demal noppali ko foofu nga defaat sa bilan mais quand il partait d'ici vraiment ça allait vraiment bien parti pour defar yaramam voilà mais Jules ñëpp ko ñàkk comme on dit et depuis hier on a gis nañu témoignage yi moi man dañ ma oo à quatre heures et demie sama frère moom moo quatre heures demi mais avant ñuy naan cinq heures kër gi fees te man waxuma kenn tàggee rajo yi parce que rajo yëpp a ngi ko doon wax ñëpp ñu voisin ñëpp daw si ñàkk nañu daal.